salaamaaleykum mbokku net bi TV euh, Sénégal jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun mbégteeg banneex la ñuy àndal euh, ci di leen dëgtal xibaar yi saa su nekk tey ci euh, dimanche yemoo ko ñeenti fan ci weeru décembre ñu dal di ànd ak yéen ci xibaar yi ci kàllaama kocc dal di koy dooreek ñaari député yi PUR yi nga xam ne rek ñoom ñoo daal doon jàppante ak député Amy Ndiaye Gniby di député maire bu Gniby coow laak na mu tëdde woon ñaar jàpp ñetti fan yoo xam ne Sénégal yëpp yéy nañ ci yàbbi vidéo bu wër àdduna ñu daal di koy ñaaw lu bu baax a baax ci ay député yi dem ci assemblée national di euh, xeex ba lu ni mel jot caa juddu ginnaaw coow laak na mu tëddee waa benn bokk yaakaar doon wax ne yoon dana ci def liggéeyam ba yenn kuréel yi sax jotoon ci amalum ndaje taskatu xibaar yi la ñuy wax conférence de presse ginnaaw démb procureur bi nag moom moo daal di joxe ndigal ngir ñu daal di dem teg loxo ñaari député yooyu ginnaaw bu mu autosaisiro Massata Samb ak Mamadou Niang di ñaari député pur yooyu nga xam ne ñu ngi bokkee ci Serigne Moustapha Sy yoon daal dina leen di mujjee teg loxo ni ki démb ba dal dina ñu leen di placer en garde à vue ñu daal di euh, jeexale euh, xibaar yi ak Barthélémy Dias ci assemblée nationale euh, daal dinay jël kàddu ba tey ci votum budget ministre yi nga xam ne ñoom la ñuy daal di amal ci assemblée nationale Barthélémy Dias nag fan yi la daal di teewaat ci assemblée nationale ba mën nañoo sax wax ni lu tolloog ñaar jàpp ñetti fan rek la ñu ko fa gis ak xarkanamam mu daal di toog comme no député toogee waaye itam daal di participer ca séance yi nga xam ne mu ngi fay jotaam ci votum budget yooyu ñu gis ne démb ba mu jëlee kàddu daal na yëy yàbbi ci mbirum euh, député Amy Ndiaye Gniby la mu jot a xamle moom moo di lu ni mel yàgg na fi fàttali sax ni ab député dooroon na fi euh, député bi di maam Diarra Fam te mbir ma mujjul fenn gis nañ ci àdduna wérngeel këpp ay député yoo xam ne dañuy jàppante ci assemblée nationale te xam nañ ne que ñoom député yi dañoo am mbalaanum kiiraay moo xam ne daf leen di protéger waaye itam article boo xam ne protéger na leen ci biir assemblée nationale ba nga xam jàpp ne nag cette fois-ci bu ñu bëggee jàpp ñaari député yu pur yi dañ fi indi coow jafe-jafe dana fi amaat ndax duñ ko nangu ndax lu ni mel yàgg nañu ko faa gis lii ab stratégie la bu ñu tegoon rek ngir bëgg leen a daal di teg loxo waaye lu ni mel bu fekkee ne rek ab dil bu ñu teg du jàll waaye itam ba muy wax ñu gis ne ki nga xam ne moom moo di euh, Coura Macky daal di jóg euh, ngir attaqué ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Diaz daw bëgg ko song ngir rek jàppanteeg moom député yu benn Bokk Yaakaar yi ñu téye Coura ba daal di ko yóbbu sax ca ruq ba nekk ci biir assemblée ba ngir bëgg rek a calmer Barthélemy réaction moom moo di nañu bàyyi Coura Macky mu ñëw bu fekkee ne que ñoom député yu benn bokk yaakaar yi dañu leen daal di euh, sol ba ñu ñëwee la ñuy def moom moo di jéem a créer histoire ci assemblée nationale ba bu ñëwee dana ko dóor dóor yoo xam ne moom mooy raw door yu kuram yo dóor yu Ami Ndiaye ñibbi biya euh, ci noonu rek la ñu mujjee daal di calmer euh, jeu ba ba séance boobu dañu ko mujjee rek daal di yeggale ñu jàpp ne moom Barthélemy Dias la nga xam ne moom la wax ne lu muy dëggal la bu ñu leen tegee loxo itam dinañ leen teggi ndax am nañ balaanum kiiraay mu leen di euh, yiir waaye procureur bu dafa jàpp ne daal ñaari euh, député yi la ñu def délit dëgg la ba fi mu ne euh, ñu ngi ci loxo yoon mbokku net bi TV Sénégal mbégteeg ba neex la ñu doon am ngir di ànd ak yéen woy leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme ëllëg la ñu àndaat ak yéen incha allah ci beneen jataayu xibaar jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm